Euh, Chelsea bu Edouard Mendy démb Liverpool bu Sadio Mané ak Mohamed Salah moo leen daal di daan ci final Carabao Cup bi doon am fi nga xamante ne nag mooy ci diwaanu Angleterre. ki nga xamante ni nag mooy gardien sénégalais bi di Edouard Mendy ci cent vingtième minute bi ñuy waaj a dem ci séance de tiro bi ci la ko Thomas Tuchel daal di génnee moom Thomas Tuchel sax après bi muy jannoo ak taskatu xibaar yi jot na xam leen ni rëccuwul benn yoon li tax mu daal di génnee ki nga xamante ni moom moo di Edouard Mendy daal di indi Kepa ndax nee na Kepa euh, day nekk ak ñoom di entraîner saa su ne. te képp koo xamante ni yaa ngi ci équipe bi xam nga ana lan la Kepa daal di capable xam nañu itam ana lan mooy ay point fort moom sax mu njort ni Kepa bokk na ci ñi nga xamante ni ràññeeku nañ bu baax a baax ci ñi arrêté ay penalty loolu rek moo waral mu daal di koy indi.